ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط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 مآبا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن الرحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء بالراء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شناء وبالشين شفاء وبالسين سفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء إصراء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا مفتاحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من زيق الأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا واجعل تقواك زادنا والثقة بك والثقة بك والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا عبدك وأبناء وعبيدك وأبناء إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عند أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل العظيم القلوب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة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 لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار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 بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجوارح أفطاهم لأقبه القبائح فلا تواقظهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا وكفنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا واجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أيد خليفتنا الشيخ محمد المنتقى اللهم احفظه مصفر اللهم احفظه وأطل عمره فينا اللهم احفظه وأطل بقاءه فينا وأكمل مشاريعه جميعا اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة وإلى روح عبدك الشيخ أحمد بن رضي الله تعالى عنه وإلى أرواح وإلى روح الشيخ سيد المختار اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا واجعله هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح عبدك الشيخ السيد المختار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 min jamiihi alxayraati fi alxayaati wa ba'da almamaat ma ñaan المصطفى محمد سرا وجلا في برايا الصمد لم يبدو مثل المصطفى محمد أعطاه sante sunu boroom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di dellu di ñaanalaat a cheikh muhammadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko noonu lañ koy ñaanale cheikh muhammadul moustapha di xalifab cheikh muhammadul lamin baara sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko ba naa yi mu naalal lislaam bi yëpp mu ànd ko ak njabootu cheikh muhammadul lamin gaar baara yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw dañuy am kàddu sant rek di sant Serigne Abdou Khadir mii nga xam ne si moo doon taxawee naafila gi di ko ñaanal yàlla suñu boroom mu dollee ko sàmm te wéral ko te kàttanal ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Cheikh Baara Karim mii nga xam ne si mooy imaam ak Serigne Abdou Lahad seen Serigne Cheikh Baara Lahad mii nga xam ne si moom it liggéey bi fu mu àgg gannaaw yàlla moo ko fa àggale kon ñu ngi lay sagoo. ñi ngi lay sant cant gi tamit mbooleem njabootu cheikh Mouhamadou Lamine Baara gépp dugg nañ ci biir li daree ci waa kër cheikh Mouhamadou Hafiz ba ci kër Serigne Khadim Xawa ba ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp nga ci biir ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ngeen ñaanal la ñu sëñ Abdou Khadir mii suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko lis yéene ji mu am di ko liggéeyal Serigne Touba ci toolam bii di alquran ñu ànd kaak moom ak njullit yi fi nekk yëpp ñu nan ko àggale fu kawe njort loolu daal ñu ngi koy dagaan ngeen ñaanal ko yàlla ku am yéene la ku am yéene la sant na ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw mbooleem ñi jàppoon ci naafila gi ba mu agsi fii ñoom ñëpp la sant na leen sëriñ Mut Siise moom mu ngi xam si moo jiite muallim fu liggéey bi àgg tamit gannaaw yàlla moom àggale na ko fa jéebaane na ko ba mu àgg fa sëriñ bi mu ngi lay sant mi ngi lay gërëm ñu lott ci suñu xol dafa fees ba mënuñu wax li nekk ci suñu biir xol lépp mënuñu kaa mënuñu kaa yëkkati waaye kàddu yi day kàddu ndigal kon nag sant nañ ñëpp jërë ngeen jëf bismillah bismillahi rahmaani ñu ngi nuyu mbokk mbokk jullit yi fi daje yépp di nuyu turu Sëriñ Moustapha mi xam ne mooy njiitul penc mi tey di leen nuyu turu seex Cheikh Bara mii imaam sëñ Cheikh Bara Karim nga xam ne moo waroon a jël kàddu gi ndax bu fi teewee teewal na fi ñu Moustapha kon bu ñu fi teewee teewal nañ fi kasaalika benn lañ penc mii ñaari jëmm nekku fi benn jëmm moo fi ne ñun ñépp benn lanu genn kàddu lañ yor eh, kon ñu ñu ñu ñu ñu njëkkee sant yàlla ndax fii toogoon nañ fi daaw ren jii nu dellu toog fi am na ñun fi nekkaloon daaw te dem nañu te defaluñ yàlla loo xam ne defaluñ ko ko te téye nañu fi yabal ñooña te nuy séentu it ni nooy topp ca ñooña kaamil bii keroog bi ñu koy tàmbali weer képp la toll weer wi sax manqué na ci tey ñaar fukki fan ak ñett am na ñoo xam ne taxawoon nañ ci sàppe si ni ci kaamil bi te tey nekkuñu fi te tey ñun yeggale nañ kaamil bi kon loolu doy na sant yàlla eh, weer wi itam di weer woo xam ne ni ñu koy faral di waxee njëlbeen gi yërmande la eh, ak la ca topp lépp jot sa bopp ci ca sawara nekk ci njëggal na ci lépp nekk ci di weeru promotion boo xam ne itam li ni ñu leen ko mën a misaale mu gàtt boo dugalee ci sa téléphone ñaar fukki dërëm ñu def ko junni wala nga dugal ci ñeen fukk ñu def ko ñaari junni nga dugal ci fanweer ñu def ko lu kasaali ko multiplier ko par dix par vingt par nangam waaye nag tekkiwul ni weer wii rek ci lañ war a jóg di def li ñuy def weer wi suñu borom moo teral weer wi ndax alquran mooy kalaamullah te ci weer wii la wàcc kon alxuraan bu doon am anniversaire dañuy wax ni weer wii mooy moo mooy mooy anniversaire am koo xam ne waxtu wa nga juddu bu jotaatee nga di ko màggal bu weeru koor dikkee war ngaa màggal alxuraan boo dee jullit beneen ba ci topp mooy Euh, xarab badar ci la amoon yeneen yu baree bari yoo xam ne mënees buñ ko dee lim jitaay bi du ci xaj yooyu yëpp yooyu yëpp ci la amoon kon euh, weer wii weer la woo xam ne kenn ku nekk da war a daw wuti ko ku ne da a daw wuti ko ndax mooy weeru sunu borom sunu borom moom nee na koor moo koy fayal boppam kon weer wii weer la woo nga xam ne weeru ñëpp waaye weeru jullit ñëpp kon. Euh, nu sa ginnaaw bu nu santee yàlla ci loolu ba ba noppi cant gi ñu tàmbulee ko ci sëriñ jiili mii euh, ndax damaa wax ni lii nga am ndimbal la ñoo ngi lay sant cant goo xam ne turu sëñ Moustapha la jaar ci sëñ Cheikh Bara Karim mi ñëw ci noonu muy njaboot sëñ Bara gépp muy taalibe muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy soppe na xam ni ñépp la sant sans exception amut ku ci deng-deng sax amut cantu yéene sax la nag du cant goo xam ne cantu munta ñàkk la mbooloo mi dañoo daw jëm ci barab nga daw jëm ca déedéet cantu yéene la cantu yéene la te lii nga am da dadul lu yomb ndax benn alxuraan moom mooy ci la ci la lépp nekk yàlla dogal mu wàcc weer wi itam nga téye ko téyin wu wóor bëgg ko bëgg wóor di ko jëf jëfin bu wóor di ko jëf ngir yàlla itam ndax ndax sëriñ Tuubaa de lu ne wax na ko alxuraan kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillaahi bi sakkantu ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga jóg tekki tekki sa tànk góor-góorlu ci loo man nga di ko jëf ci dëgg xam ko ba noppi nag di ko jàng di ko jàngale ba pare di ci jiite nit ñi nag di ko jàng di ko jàngale di jiit nii nga xam ne kon mag mucc ci ndaw mucc ci góor mucc ci jigéen ñi mucc muccut ci sa liggéey boobu ndax boo dee jàngal tànk yi ci sa kër bu guddee nga ñëw jiite si fii kon kenn mucc ci du góor du jigéen du mag du ndaw du sëriñ du taalibe kon loolu day dëgg ci yow ba ko ñaaral mooy wax naa fii du benn du ñaar bu fekkoon ne xaalis nga soxla day am na ñoo xam ne boo leen sollicité jàpp naa ne weeru koor wi jàpp naa ne weeru koor wi buy dee di nga fa jëlee loo xam ne fii ba déwén mën ngaa bañ a dem fenn fii dara nga fi jëlewut yàlla nga fi jële te yàlla ci la lépp ne sëriñ Moutala daf ma ne woon koo yaakaar ku dul yàlla ndimmal ci moom ku dul yàlla bis dana ñëw nga yóbbu ko ci armeel mbaa mu yóbbu la ci kon yàlla képp la ndimbal nekk ci moom te yow yàlla nga jox sa bopp ndax lii ngay def mboolem ko fi toog mën naa seere ni eh, jikko yi na ci yow ak doxin wi na ci yow ñépp di ko gis kenn mënu koo weddi am na ñuñ bu nekkoon ci ñoom nëga ni waxeetuñ ko ci dëkk bii yépp kon nag ñun ñi nga xam ni njabootu sëñ Baara nga ñëw fii tey téyel ñu lii nanga xam ne téye nañu la te itam nag euh, nit mën naa jàpp ne moo la ëppale nit mën naa jàpp lu nekk waaye waaye gën laa rey jëf wala ëpp la ci àdduna du yomb gën laa rëy jëf wala ëppale la ci àdduna du yomb ndax béréb bii boroom dafa am lu ko suñu boroom may am lu ko sëñ Tuubaa may te kenn mënu koo weddi fii nu toog fi la néegam nekkoon ñu def ko jàkka ji tey jii nga ñëw di fi jiite loolu xaas la du ko jóg yàlla defal la ko boo fi ñëwoon di jiite te xamoo li nga war a xam mënoo li nga war a man itam du jariñ dara waaye nag yaa ngay tàmbalee ca ponk ya ba ba fa mi jeexee amul dara lu la ci ump nga di ko jëf te di ko jëf ci yéene di ko jëf te ngir yàlla itam waxoon naa ko léegi fii dañoo waxoon ni ku fi bay dangay ngay faatu sëñ baar moom ba mu ñëwee defee dëkk defe naa benn quartier dàqul dàqu gënuta rafet quartier bii tey kon loolu xam ku ne xam na ñaan ko nangu nag ku tàbbi ci biir sant yàlla nga war a def kon ñoo ngi lay sant li ma bëgg a wax lépp sax xajul sax ci ci ci ci ci béréb bi li nga xam ne yéene naa koo wax waxal ko njaboot gi nit ñi gis ko xam ko xam ne yaa ko def genn wàll ga sax mënuma ko wax ndax ñun dañoo amul fudul fii amuñu lu dul lislaam amuñu lu dul alxuraan amuñu lu dul sëñ tubaa amuñu lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa amuñu lu dul sëñ baara kon loolu ku ñu ci taxawal ba nga xam ne ku nu waroon na reetaan reetaan noonu ñoo ngi lay sant ñëpp jullit ñëpp nga ko defal waaye nag nun ñii nga ko defal ndax tàgge bu ne wolof yi dañuy léeb ne dafa am jàppal jiw kon cant mënut a rëy rëy ñaan mënut a rëy ba jéggi ñaan waaye nun suñu cant ñun ñëpp di njabootu sëñ Baara ci làmb ñu sëñ Moustapha jaare ko ci sëñ Cheikh Baara Yilimaan mii suñu cant du lu ñuy wax ci làmmiñ loo gis ñu jox la ko fii la kër ya la kër ga bu ñu ko mënoon a gàddu dikk yët yët la ko fii dañ koy yët dañ koy gàddu la ko fii ndax alxuraan jar na ko ci noonu jëf ji nga jëfal jar na ko ci noonu weer wii jar na ko ci noonu jëmmi sëñ baara jar na ko ci noonu kon jëf lu ñu jëf ci yow rek na nga xam ne lu ndaw la te wolof njaay dafay lépp ni bu yoon jeexul waax sil du jeex te suñu diggantee yow moom donte xawma lu yàllay def wante donte dañ lay dégg feneen it waxtu wii su jotee teral teraanga ji leen teral foo mën a nekk dinañ la fekk teral la ko ndax xam nañ ni fii li nga fa jot a def doy nu sëkk bu eh, dafa am eh, dafa am bis boo xam ne damaa jóg ba jëm si ci ba jëm si ba si sa kër ci weeru koor muy naaj bu tàng ma jóg ba jëm si fa am ku ma dajal bi ma dajeeg moom ñuy waxtaan waxtaan tuuti ma ne ko man dama doon bëgg a seeti seen jéeli nangam ak nangam di ñu nekk fa di wax waajooja noonu day jooy ba mujj yoon ma dama koo foog kooka day wax ci yow lu baax day wax ci yow lu baax di wax ci yow lu baax mujj mu jooy ba tàggoog sagam nga xam ne yoon woowu ak siwuma ci yow te te dama doon bette kon loolu du ko jóg am ko kon ñoo ngi lay sant bu baax ñoo ngi lay gërëm bu baax sëñ Cheikh Bara njaboot gaa ngi dellu di la sant njaboot gaa ngi dellu di la gërëm ndax ñépp dañuy doxi seeni soxla nga toog fii buñ nee diw faatu na ak ku mën a doon muy man muy ku mën a doon yow lay woo bu ko fekkoon ca France nga dem boo fa taxawoon lu ma fa def yow da nga fa def duubal ba te ñëpp nag amoo kenn nag xaar ma yàlla penc mii xaw fi kenn kenn kuñ naan du dugg sa kër mbaa doo dugg kër xeeboo kenn itam loolu nag mooy la ko may jikko ji ma wax seen jiil léegi sallallahu alayhi wa sallam li mu tedd yépp ci jikko la ko yàlla tagg ni ko wa innaka la ala xulna asim du ma dañ di ko wax xol bu sell nga yor itam te te te ku sab xol sellul doo dara xol bu baaxee lépp baax xol bu baaxul dara du baax xol mooy jëmm yow ma laa yéen fa maalun ba banoon ilaa man atalaa bi xalbil salim kon sëñ Cheikh Baara ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm bu baax itam taxawaay bi ñépp mën na koo seere koo dajal ci mbedd mi rek mën naa seere taxawaay bi loolu nag doy na sëkk magoo fi ëppale fi sutoo fi yàllaa la ko yàllaa la baaxe loolu kon ñoo ngi lay ñaanal mu yàgg suñu cant ay ñaan lañ koy def sëñ Xaadim kasaalik ñoo ngi lay sant sa maam ja lam la bàyyee woon sa waajur wa lam la bàyyee loon ba fii te jii muy muy muy taxawaay ci pénc mii yaa ngi ca teg sa tànk delluwoo ci ginnaaw ci dara ndax lii lépp bu amee mën nañoo wax ne yow mii ndax sëñ jili mii kat boo ko yabaloon ca Ndakaaru ni ko demal jiite dafa day dem de ndax séq ngeen ko kon nag ñoo ngi lay sant bu baax ci taxawaay bii te bàyyi woo ko itam nag man nga ko fee mënoon na fee nekk ba pare nga toog ci sa kër kenn du la gis doo ci dox benn jéegu waaye bis bi yow yaa ma wax barki démb sax ni ma kaamil bi tey jii lay yegg kon taxawaay bi nga war taxaw yaa ngi koy taxaw kon na xam ne sëñ Moustapha mi lay sant ni mu sant sëriñ Jili mii sant ko sëriñ Cheikh Baara mii ci taxawaay bi mu taxaw fii noonu la la sant cant gi itam da ñun ñëpp dañuy àndandoo soppi ko ay ñaan ñuy sant ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci jàkka ji tàmbalee ko ci Aziz mii nga xam ni amul soxla fenn guddeeg bëccëg mañ ci jàkka ji eh, Aziz mii nga xam ne guddeeg bëccëg nañ ci jàkka ji ak ak ñoom ñii ak Basiiru Maye ak ñoom ñi nga xam ne dañ fiy nodd ak taxawu jàkk ji ñëpp ndax kenn ku ci nekk la nga féete boo ca féete wu tam itam day witt wala dañuy jéem wuti keneen ku ca nekk te kenn ku ci nekk am na ñiy wattu jàkka am na lu yàlla digal di dige ci ñoom ñiy nodd am na lu yàlla ci ñoom ñiy jiite am na lu yàlla dige ci ñoom kenn mënu cee ñàkk te ku ne la yàlla dige ci yow dana ko def ñi jóge ci àll ba doxe seen kër julli si ci jàkka ji dem am na lu yàlla dige ci ñoom ñooñu li ca gën a tuuti boo jógee sa kër ba ba ngay dellu ñëw ci jàkka ji julli ba ba ngay dellu dañ lay farali bàkkaar loolu mooy li ci gën a tuuti kon julli si ci jàkka ji lu mat a fonk la defar ko ba mu baax mu rafet sa njiili alxuraan ji neex lépp kii baax na ñooñu ki ko defar ña ko defar def nañ seen dawaar sa njiili jiiti alxuraan ji neex lépp def na dawaaram waaye nag jullit ñi nañu julli si ci jàkka ji ndax yàlla suñu borom bu doon wàcc fii tey du du du dem du dem fenn fu fii ndax xam na ne fii moo dem néegam néeg bii la moom boo fi defoon jamaa mbaa nga def or def ko ca bitit bu yàlla ñëwee du fa dem. loo fa mën def bu yàlla ñëwee du fa dem fii la moom kon dañoo war a fonk jàkka ji te di ci julli si waxtu yépp te xam ni li ci suñu borom digle li digee ëllëg koo ko xamoon doo tardé benn waxtu ci jàkk kon ñoo ngi leen di ñoo ngi ñoo ngi gërëm mbokki taalibe yi ñoo ngi gërëm dëkkandoo yi ñoo ngi gërëm defkati lu baax yi nga xam ni dañoo nekk ci jàkka ji yëpp sëriñ di Abdou Aziz yónnee na fi ay ay ay ay jox ko sëñ jiini sëriñ Cheikh Aziz léegi léegi la ma jili moom sëñ Abdou Aziz moom itam léegi la ma jili ni yónnee na fi ay teraanga mi ngi nii moom pour ñu jox ko sëñ sëñ sëñ Abdou Khadir mii Makumba Jaxate itam ak mboolem njabootu Baye Moussa Baye Moussa di gaynde goo xam ne ci sëñ Baara ba mu mitti di jafe nun ñi ñëpp suñu waajur amut kum ci tëralul kon ñoom ay doomam bu ñu wàññi koo ñuy liggéey fii ñu ñu ñu ñu def benn jéego ca liggéey ba ku ne xam na ne aw nañ yoon wa seen baay awoon ta dale ko ci jiili mii nag nga xam ne du tàggoog yéen guddeeg bëccëg sant gi la sant sant ko sëñ xaadim moom lañ sant moom lañ sant sëñ jiili mii ndax lu muy yëngu muy yëngu ci yow nun ñii la koy yëngul kon ñoo ngi koy ñoo ngi koy sant bu baax euh, Mood Diop ca Italie moom itam yónnee na juróomi junni euh, barkeelu ko ci bis bi kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp liñ bëggoon a wax nag liñ bëggoon a wax nag ëpp na lii waaw bàyyi rek jeexalu li ñu bëggoon wax nag ëpp na lii waaye cant moom daa munta doy cant gi moom lu ñu def lu dul soppe ko ay ñaan daanaka rek nan ko bëggee duñ ko amee noonu sëñ jili daal na ñëpp seere ni njabootu sëñ Baara ñu ngi lay sant cant ko amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem nii nga jëfe ngir yàlla noonu lañu la sante ngir yàlla itam ni nga jëfe ngir yàlla noonu lañ la sante ngir yàlla ku ne xam na li wax naa ko léegi am koom bàyyiwule la fi ndombay tànk bàyyiwule fi leneen bàyyiwu la fi leen la fi bàyyi mooy dëggu te dana ñëw boo xam ne lu dul dëgg fa am njariñ yow ma yenn fonsaati xëy na siddu xum law te dëggu moo la bàyyi fii jëf ngir yàlla moo la bàyyi fii alxuraan ji nga jàng da nga koy jëfee moo la bàyyi fii bari na ko koy jàng te bu commerce jotee nga nga bu commerce ko jotee nga dem commerce ji ko yow nag danga nga koy jàngatu commission woo ko man baaxoowu ma tagg nit waaye ku def lu baax ma wax la ko ku def leneen nag sama yoon du ca nekk ku def lu rëy di nga am lu rëy def nga lu rëy sunu borom danaa la fay lu rëy ndax moo ko wax te du wax di ko weddi kon jërë ngeen jëf. bismillah nangu leen ñaan bismillah nangu leen ñaan li balaka